cere tam xar damay ñëw xool sama xar yi nga xam ne nag ñooy jaaykatu ginaar yi tey ginaar yi naka la fi demee ñaati kilo ma fi am bi ba gis naa ko muy suqi euh, sama sëriñ na yaa ngi ci jàmm. man de ginaar laa bëggoon. bi ngay suqi nii ñaata kilo la. Hmm, ba ñaata kilo moo fi am. mooy ñu nekk nekk taabal bi quoi. Mm-hmm. mën nañu ànd ci yooyu ma xool. indi démb gis nga fii euh, boo ñëwee marché ci leen xam nga fi ñuy suqee yi nag mooy 4 kilos. lii mooy 4 kilos yi 3 kilos 500. yi yi ñaata lay jar. 4500. 4500 fële daal ginaar gi toll. ren ginaar dafa cher wala dafa yomb. non non yomb na yomb na yomb na am na yu jar 1500 am na yu jar 2000 am na 2500. waaw yii daal 4500. waaw nañ nañ nañ nañ waxaale ma ak yow nag man 3500 laa yor bëgg ci ñii. waaw loolu rek la ñii loolu mooy seen prix. waaw kon tey nga ma kaa defal 4000. loolu rek mooy ci kaw guro bi. waaw defal ma 4000 nag yow tamit nga xam ne su ma toogee sama jërëjëf daal dama lay tëddal defal ma 4000. nga ne sama jigéen bi bu mënoon jar loolu duñ discuter. Ah, waaw kon daal 4500 la taxaw. waaw yooyu foofu la taxaw yi taxaw ci juróomi téeméer. waaw defal ma ci ñett rek maa ngi ñëwaat dégg nga. waaw incha allah. démb balaa may jël ginaar gi dama ko fii bàyyi bàyyi ko mu defaral ma ñu dugg ci biir ma xool légume gi maanaam ñoom chou-fleur ñoom carotte ñoom ñaam bi ak yi nga xam ne moo dem ci cere ñoom yomb surtout nga xam nag cosaan la gis ngeen tey ni ma gàddoo sama lekket fas yéene jéegal ànd ak yéen ci biir marché ci lim dugg ma xool marché bi yaay ci biir marché bi xool li nga xam ne moo di légume bi naka la tëddee foofu demba wax naa la sànq ne ginaar dafa am solo loolu ci li nga xam ne moo di cere tam xarit waaye ku ne xam ne ne yàpp tabaski nit ñi dañ ko daan faral di denc waaye léegi nag fi ñu toll nii nit ñi dencatuñu yàpp dañuy bàyyi ba tabaski jub si ñu jënd maanaam yàpp xar sànni ko ci pour safal li nga xam ne moo di cere tam xarit bi euh, sëñ bi ma bëggoon laa laaj rek euh, yàpp xar bi fan la toll fi ñu toll nii. seen trois mille et un. trois mille amul wàññi. daanaka gën a wàññi. daanaka gën a wàññi. ko meeg ñoom karu ñoom ñoom ak yi nga xam nag mooy dem ci cere ji ak liñ koy bombee ñoom raisin ak ñoom seen lépp ci biir tey taa dégg dama dem ba gunge di ca jaaykatu lépp jaay ma ci bii nga xam ni euh, sama mbokku jigéen ñi mooy faral nokkas bi nga xam ne nag mooy moom daal moo defar nokkas bi ba mu baax jaay ma ci ñaar yëpp waaw jaay ma fu ne deux cent ma xool dem ba bi mooy oignon vert ak pooro bi nga xam ni waaw def ci persil noir bi na lépp saf rek la cere ji saf ta rek ginnaaw tam xarit benn yoon lay doon ci at nañ ko ndugg rek dañuy taajaboo ñaam bi kilo ñaam fan la toll sama sëriñ. 500. ah 500 kilo ñaam bi. waaw jaay ma kilo bu ñor ba seen. kilo bu nga xam ne ñoom taal di ngeen bu lekk du leen sonal. ci ñi nga xam ne nag euh, Tata Degene yow ak maman Fatou Bintou yi nga xam ne yéen a ngi toog ci télé bi dañu seetaan ñu nekk ci marché bi Télé Futurs Médias moom xam ngeen ko ni mu dëkkee ak yéen saa su ne ak fi muy génn ak ay feemam dañuy ñëw ci ñi nga xam ne nag ñoom ñooy jaay maanaam li nga xam ne mooy sàppali li nga xam ne moo di ji ndax nag ku rusi da ngay rusee diwlin waaye ku def tomate ñamb xam nga di nga def tomate loxo ci te boo defee tomate loxo sa nokkas ñoom laaj ak ñoom poobar ak ñoom saf safal yi nga xam ne nag ñoom ñoo ñuy gunge ci jaxa ji moom la ñu jënd si fii euh, sëriñ bi na def mbaa yaa ngi ci jàmm naka nga tudd ma wóor naka jënd kilo bu fekkee da ngaa jënd genn waa libre bi 300 da lay dikkee kilo ah waa lii nag da ma koy wàññil nag man 250 laa fay ci ci genn waa libre bii ah euh, Demba haricot xam nga ni dafa bokk ci cere maman dégg na xam ni cere ji boo koy bomb faral di bombee li nga xam ne moo di haricot yàgg na ci ñoom maam la woon ba tey haricot euh, bi kilo ñaata lay jar kilo bi 2000 comme man nag man ak papa kese la damay jënd bii bii ñaata la bii 1000 francs lii ñaata la liibar waaw ma jënd liibar bii bu ko defee nag nga jaay ma euh, ñoom tomate ak ñoom seen jaay ma poobar bu mokk ma mun a bomb cere ji ak lépp loo xam ne war naa def ci cere xoolal nañ leen ko li nga xam ne moo di ci biir marché la te xam i marché ndax ba ci li li nga xam ne moo di diwlin yi nga xam ne moo nekk ci sunu réew yëpp am na fi kon nag ñu ñaanal ñëpp nag tam euh, xarit bi jàmm ak salaam di wax ñëpp déwéne ci leen sargalaat baax a baax sama ñaari yaay yooyu nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi démb laa àndaloon ci marché ba gis ngeen dugub yi ma nar a nag yekkal Sénégal yëpp ci li xam ne ah démb <laughs> lii la ma def waaye nag dañuy delluwaat ci marché bi dem jëndi haricot sarax la nañ ko bàyyi ci suuf nañ ko bàyyi xam naa lu tax mot bi moom rek moo ko xam euh, nañ demaat jëndiwaat haricot rek waaye loolu xam naa du yàq dara ci cere ji ndax nag dañ koy bombee ça les cinq dernières minutes kon nag jaajëfal ñëpp jaajëfal moo duggee héritage bi nga xam ne moom laa àndaloon ak ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey ba lépp yëngu taa dégg kon plateau baa allah euh, soxna Fatou Binetou man daal maa ngi kontaan ci soxna Mati. man daal dugg na lool macha allah macha allah ren nag cere gi moo koy togg fa tabarakallah macha allah alaaji yow lan moo la gën a neex ci ci ci ci ci ci mbiru bi ndugum Mati bi. leket gi. leket gi de lu tax. démb la woon. dëgg la. moo tax kër yi day ñàkkub dépasse. Hmm. lawtan la. lu am fu muy yemee. bëggoo duggee mbuus. Euh, mbuus duñ dugg. Mm. bool duñ dugg. palaat mm. duñ dugg siwo duñ dugg. déedéet leget. leget ñuy wax ne li muy lawee. Mm. lawtan la. ni la kër gi mel dépense du fi jóg. jërëjëf muy kon nañ benn bu démb waaw boo bu dee kii sëy yi. laax ba ci leget lañ koy def. Mm-hmm. bu jëkkër ji yoree mu yor. ñu xëccoo ko dëgg la. leget day taatam di law. dëgg la. bu dee même. ki ñu war a dugal tey néegub góor mm. soow mi ak diwtiir gi ci leget gi lañ koy def mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. bu dee ki war ko jox sëriñam noonu lay mel moo tax dépassé démb ya mm. bëriwuloon waaye daa barkeeloon mm. dépasse tey yi bëri nit ñi bëgg a deekub xii la ndax mbuusu place lafat bi ci dugg mi ah. balaa ñuy dem ci dénkaan waaw moom koy ajaamati wax dëgg yàlla kontaan nañu trop jonge na parce que nag li ma si gën a neex itam tay baas bi ak wax ah. bi ah. xam nga itam bu njëkk ba jeeg dafa am nooy demee marché gis nga man euh, ci cere ji nii dafa am benn bés ku ma bokk leen kër ñu ñoo di togg bés tam xaalis rek mu dikkale ma mhm. ni ma xamul ne ma nag doomu xaal pulaar laa jërëjëf waaye ba ma nee sama jànq bi génneel ma sama sama sama marinière bi ah. ba ma fiitu. waaw def ko comme mati. nii mu def waaw waaw da ngay denc bés day denc daal di daal di frankulaayu ah. uf sama leket. waaw kay génneel naa ko caagri. waaw génneel naa ko njóorni. génneel naa ko araw. jërëjëf su ko def sama cere. jërëjëf moo tax tey lii mu def nii ci ndugg mi dama kontaan parce que ndugg bi dafa complété. jërëjëf loolu yëpp rek laa gis jënd ko. waaw waaw nee na nee na ak souffleur dina ko. ak souffleur waaw waaw xam naa yooyu da koy wëri. <laughs> man daal kontaan naa ndax ndax mi doon ndax ndugg mi moom jaar na yoon. macha allah te xam naa ne fu mu ci def doole boobu nag moom a <laughs> xam naa boobu nag bu aada la boobu moom sarax la bu ko ko bàyyi ko xam loolu fa mu tuur man daal kontaan naa lool fu mu nekk ne nag jamono jii ñuy waxtaan ak yoon du gën a marché mm. ma ngay togg cere bi te guddi damay ragal su fi oustaz Pape Anne nekkee ñu gis cere bi ñu gis cere bi ñu gis cere bi daal man la guddi moom damay taajal taaw du ma ko tal du ma leen tal déedéet déedéet man mi sax du ma leen tal moo tax ma jox ko oustaz Pape Anne su ko defee roqee indil ko tamit cere bi fii yomb buñ ko di fàtte ci tam xarit yomb waaw yomb ak ñebbe ak ñebbe eh, eh, moo delluwaat delloo njukkal leget gi mu yor. Hmm, dañoo fekkante de. waaw dañoo ànd. Hmm. yomb daa muusul. Hmm. daa muusul. leget gi nag daa muus ñu dagg ko. Ah. ñoo bokk baay. ñoo bokk baay ñoo bokk baay. boo gisee toujours ñaari diggéen maññ. bu ñu bëggee rek riir ñu sëppi ko. bu ñu delluwaatee ginnaaw tuuti. kenn dootu jàmbat. dëgg la. li gën a bon ci àddina nag sañse def yaramu neen yan yàlla musal dëgg la mooy tey dëgg la mooy mooy kaasiyaatun aariya dëgg la dëgg la seen nabi wax na ko gontuwaatoo <laughs> solo ba pare hmm. waaw hmm. ba pare ne waat du mu sibiti moo xew mooy li xew ci léegi ci baax baaxul am na ku fi wootee wax ko ko waaw ne yére day seer lool te dul waaw léeg-léeg nga gis koo xëy hmm. déggan te li mat a bàyyi xel nag nit ñi dootuñu ko def dugg ci biir bitik bàyyi la moom jënd loo moomul mm-hmm. te la moom yomb lool te ba léegi mooy topp muy perkaal mm-hmm. waaye sa biir jël na ko dëgg la cay perkaal kon la nga dëng ma di ko jënd ndeysaan te perkaal gën ko fuuf mm. waaye mooy supérieur perkaal ci yow mm. boo ko solee mm. na méngoog moom léegi ñu sañse bàyyi xel perkaal yàq sañseem ndax jikko ja am tëg moom dëgg la dañuy wax man njëkk bu ñu mësaa dëkk ni faat bindi doxe da ngay solo pare génn suuf di jëm kaw dangay di sab tànk. wallaay wallaay dox ndànk doo xool ca kaw. dëgg la da ngay lamsal. wallaay wallaay. say bët du xoolu. wallaay wallaay di warax le ca am. di warax le di lamsal waaw bu njëkk loolu lañ daan. dëgg la booba rax laa xew rax la. dëgg la rax la lii ti rax la yi. dëgg la dañ koy toog ca kaw périmètre étage. waaye yow du ma indiwaat. dëgg la jël ay buukal def ci. waaw ak libidoor def ay <laughs> allah ji nga defee du ma xëy rek benn ba si def ay lëttu rax la. booba góor ñi dañuy ak Abdou Diop ak ñoom Koddu. yooyu jamono bu bu jigéen ñi defee yooyu yooyu jamono ko fi indi ah. bu jigéen ñi defee ah. duñ la ko mënal. turki yaay mu sarboyaar. Mm, loolu nga koy def du am maas. Mm. nga boole ko xaftaanu gabardine. dàll yi fàttali ma ko dàll yi Santiago trois boutons. bu ma rax laa di nga lii. ni nga barax la. Ah. loolu de xool dama bëgg nga baaxe ñu ci bés bu mel nii. waaw nga xam ne bésu Achoura yan ñaan nga ñu ciy may balaa laasana di ñu jël waaw xam naa na léegi mu ñëw waaye. ñu waxoon rek waaye jox euh, liñ ci war a def moom dafa am douze mbir yoo xam ne suñu mag ñu baax ñi wax nañu ko. Mm-hmm. Euh, ne moom lañ ci def bokk na ci julli. Mm-hmm. bokk na ci woor mooy comme li ñu def nii ñun ñëpp tey jokk mbokk saraxe sangu tusngalu seeti borom xam-xam xam nga léegi boo seetiwul borom xam-xam it taal sa télé yi jàkkaarloo borom xam-xam yi yombalal nañ la lépp daan ne seeti itam ku feebar bëgg nañ ko ci bés bi raay bopp jirim ça veut dire que jubluwuñu raay bopp jirim mais nga seet ba jirim bañ a jool baayam tey dégg nga ak lan ak nga yaatal sa njaboot foofu nag am nañ ci taxaw tuuti seetlu parce que mbir mi du cere kese. ki nga xam ne cere la wala rek. Hmm? sa borom kër bu dee dafa jabiti muy régime wala muy régime am ah? tension ah? wala ngeen nekk ci yeneen yoo xam ne du yaatalal sa njaboot du rek cere xam nga buñ dëkk ba boobu rek la woon hmm. mais tey dangay ngay seet di dëppoog sa wér gi yaram hmm. te mu dëppoo itam ak jamono nga toggu ko ba mu baax itam ah? wàññi xam nga léegi soo naree jël togg mbana baasi salte jël booli cere yóbbul ko sa goro mm. moom kese mm. xam du xam nu mu ko de mm, cere ba nax fa ah, am na lu gënoon a jege waaw nga def lu mu bëgg waaw lu mu bëgg daal nañ seet ku ci nekk la mu méngoo rek ñu def ko loolu ma soxna ba kenn mu ne weeyi mm-hmm. taqlimul azafir leen lolli weeyi parce que boobu itam xëj na daawul ak jàng nag euh, am na ñoo xam ne sax nee nañu loolu aad euh, bidaa la mm-hmm. jàng junniy lixlaas mais lixlaas jàng ko mënul nekk bidaa parce que alquran loo si jàng yàlla daf la koy euh, fayal temps bi jox bu mais nag bu ñu fàtte hasbunallahu wa na wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir soixante-dix fois mm-hmm. ak subhanallahi mil al mizan mm-hmm. ba Euh, neexmal mawlaa a neexmal na si ndax gudd na mhm. boobu sept fois nga jàng ko yàgg sa njaboot neen bu ñu fàtte itam ci junni laqad jaakum mhm. bu ñu fàttee itam Euh, li ñuy wax euh, li nga xam ne mooy joxe dépense. Mhm. muy soratul mulk mhm. nga xam ne euh, mun ji ya mooy mhm. mooy li nga xam ne doo sa doo gis mbugalu bàmmeel kon daal yooyu dafa am xéewal yoo xam ne borom xam-xam yi moo tax ñu bëgg ñu seeti leen lu ngeen déggul ci tele bi téléphoné leen woote leen ci borom xam-xam yi dem leen ci imam yi dem leen ci chef religieux yi ngeen laaj leen ñu jox leen waxtu waa ñu tant yàlla nañ ko fi waxtu waa ñu tant waa la sama waxtu waa ñu tant bu baax téléphone bi du tàggool une waaw une daal mooy euh, macha allah Adja Digeen mhm. di la gën a feddali sama kóllëre ak a njaayloo mhm. di la wax ne man bëgg naa la xam naa bëggeel gëma la bëggoon <laughs> day gën a yokk saa yu ma la xoolee ku ma la laaj <laughs> ku ma la déggal ku ma wax rek damay wax man déggal cuub cuub bu ma yónnee cuub bu rafet. mu nga yónnee. yaa ko si sol cuub bu rafet xam nga comme awo yi. joxuñu takku yi joxuñu ma. waaw eh, waaw cuub ak ñaareel wallaay wallaay ah man ma jox leen yooyu dégg naa at lañ koy takk. at lañ koy takk waaw nañu nañu takk waaw jërëjëf ay loo. kontaan naa xanaa rek ma nuyu Kaaw. Kaaw xam nga moom mënu ma def émission ba pare te nuyu ba ko di nuyu nag sopp yëpp ak mboolem téléspectateur yi di jël nuyoo bi nag di wax sama directeur général ak suñu kilifa kër gi di Alaaji Youssou Ndour ak Njaga ki rakkam ak waa kër gi yëpp déwénati leen hmm. yàlla nañ ko teewee déwén yu bari lépp yokk dara bañ a dellu ginnaaw xam nga sama léegi lu jëkk ci xol ji dafa hmm. dëgg la mooy fat bi toog yow dëgg la waaye moo soxla bu seetee kenn du la ko laaj mooy maa ngi tëgg di wér nag fat bi wallaay wallaay ndeysaan maa ngi siyaare àlaj sef Jóob Padoa bu baax ndeysaan ak nag euh, madame Jaxate ay Jaxate waaye Euh, Imam Sarr Ousmane Sarr bu asalem mm-hmm. lii Fatou wax dama koy wax rek ëllëg ci alxames ji ñëpp ko dem la ñuy deel muy dictal ñaar waaw waaw waaw mooy xam-xam yi rek mooy xam-xam bi yéwén ci rek yéwén ci lool ñu tënk ñëpp rek ñu tënk ñëpp maa ngi tënk rek ci déwénati ñëpp rek déwénati ñëpp waaw waaw gën di ñaanal nag euh, waajur Youssou Ndour jërëjëf ndax kenn du naan ci kenn di ñaan yàlla mu sax kon maa ngi ñaan yuusu ñu ko meññ ñëpp ak ñu ko jàppale ko rek yëpp ñu def fi jàmm macha allah macha allah fekke lépp jërëjëf allah bi xanaa rek delluwaat di ziyaarat kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi di sàkku ci ñoom ñaan waaye dellu di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a nekk yal na yàlla ñor di seen fan wéral seen cër ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa waa groupe Futurs Médias yëpp ca kaw ba ca kay bale ñu ngi leen déwénati leen <laughs>